du man di tey ci wax leen gaa Bamba ya ndax ñoo ñaama doy ñooy samay roy teef fi tuubaate xam seeni jaar-jaar te koy xamlee di yoon wi ma saf def naa ko aw sas fi tuubaa man Basiirooti yàllaa ma def géwëlub Seex Bamba ak ña ko dar may xool ko cay dalu sas tey bay ma kañ kooti ngeen def mbokk yi comme si subaa léegi gis ngeen ñoo ngi ànd ak yéen liggéey bi ba agsiwaat ci base bi nga xam ne fi la internat bi nekk te tey di ajuma di le 19 janvier muy bis bi nga xam ne njabootu Serigne Dassane gi li ñuy tuddee sët yi ak sëtaat yi di def benn conférencier ngeen doon dégg noonu doon ci def waxtaan bu am solo ñu ñëw ci base bi nga xam ne fi la internat bi nekk Cheikh ak jëriñ nga xam ne ñoom ñoo doon saytu liggéey bi diggante le 13 ba léegi mujj ku ci mel ne sëñ Bada Diop sëñ Modou May Fall sëñ Mame Ndiaye su dee eh, sëñ bi laaj bi njëkk a laaj rek commission organisation gis nga xam ne ñoo ngi ko def ci liggéey bi lan lan waajale bi sëñ Dassane Sow bi incha Baara ñëw ngi sant bu baax di la gërëm di santaat uh, yàlla bu wér wér wér di jaajëfal Sëñ Tuubaa di sant Sëñ Tuubaa baax baax di jaajëfal Sëñ Daar Sëñ Njaay waaw li ñu laaj laaj la bu am solo boo am si ne laaj nga ko muy commission organisation yi laaj boo xam si ne bu am solo nga laaj waaw commission organisation bi nag ñoom ni ñu doxee ñoom mën nañ ne seen liggéey bu année bi jeexee tey jii nii ñu commencé magasin magasin Daar Sane la ci ngoon la ñuy commencé di waajalaat la vingt kon jàpp naa ne ay réunion la yoo xam ne si ne dañ koy dajee di ko réunion di waxtaane bisu suñ Daaru San bi buñ ci àggee nan la ñuy fexe ba mu mu jàll wala boog nan la ñuy fexe ba jag jagin boo xam ne si ne bu fi mas a jaar daal dañuy bëgg ana bu del si bu nekk gën a fàqu boobu nag bi ñuy door dañ koo commencé di ko waajal ci commission bi ni mu tëddee ginnaaw bi ko comité directeur bi composé bu pare fal commission organisation bi moom ay njiit ay jëwriñ dañuy tourné ci biir commission bi ñoom it fal ay sous commission sous commission yooyu ñuy fal ci biir nag ñoom ñoo yor wàccaayu liggéey maag si ndersan moo ko jiite ak sëriñ ñoo fi nekk ak jëwriñ ñu ko àndal man mii di wax ak yéen ak sëñ Maam lu ñu la dénk waaye foofu la ñuy commencé waajal Magal Sëñ Ndarsan ci la ñu waajal bis bi nga ñu laaj muy màggalu su euh, bisu lobin bi koy waajalee ci lañ koy commencé commission bu nekk dañ ko dénk lenn ndax kenn ku ne xam ne ne màggal Sëñ Daaru ni mu toll benn commission wala benn njiit mënut a diriger lépp kon nag ay xalaat la yoo xam ne si ne mbokki taalibe yi dañ koy dajee muy xale yi nga ne dañoo nekk ci commission bi foofu nag ñu fi sant yàlla bu baax a baax ndax suñu borom dimbali nañu ba Ah, sëñ Daaru San suñu borom tàggatal na ko ay ndawam ba liggéey bi dañ koy bëgg chaque jour chaque année buñ dikkaate ci màggal gi dañuy gis ñoo xam ne si ne ñu ñu pëloon daaw buñ dikkaatee ñoo leen di gën a pël wala boog ñoo leen di gën a jàmbaare ay xale yu ndaw yoo xam ne si ne yu jàmbaare bëgg liggéey bi foofu dañ ci sant sëñ baax baax ba lépp loo xam ne si ne defloon nañ leen ko dañ cee taxaw ba def ko ba defi defin boo xam ne si ne ñun ñi nga xam si ne ñoo nekk ci kanam ñu ñuy tudd di leen tudd day nekk loo xam ne ne lu kawe la mel na ni ñu séddale ko ci ay bànqaas ndax comme loolu mu doon junju dañu gis comme njaboot gi ni ñu nasoo comme ni nga ko tuddee ay tout tànk yoo xam ne gis na ne ñoom ñoo ngànk liggéey bi bëggoon nañu comme dañu ne comité directeur ne bureau fédéral moo ngànk màggal gi ci ni nga ko doon laarale ci ay ay sous commission yoo xam ne ngir ku nekk nii yow yaa ngi ci leneen ak leneen ak ñeneen ndaw ndax euh, au niveau bureau fédéral ci lañ ci la ñuy dox wala ci ci kaw comité directeur moo waaw ñun nag euh, liñ gis wala boog li ñuy dund man nee ne bureau fédéral la ñuy tudd waaye nag buñ dee xool ci wàccewaay bi dëgg-dëgg comité directeur wu Touba la ndax mën naa ne booy xool euh, fii ñu nekk nii bokk wala boog boo doon xool jëwriñ ji nga xam ne si ne moom moo jiite organisation bi ci bureau fédéral boo ko doon laaj mbooloo mi ñu bëree bëri duñ ko xam wala boog sax ab commission la boo xam ne si ne mën nañ fukki nit yoo am dañ leen a fal te jàpp naa ne ren jii ñu toll fii nii amul benn daje boo xam ne si ne commission organisation boobu noonu dajee nañu waxtaan pour màgg suñu Daaru kon comité bi nga xam si ne moo nekk Touba muy bureau euh, fédéral muy comité directeur jàpp naa ne waajtaay màgg suñu Daaru Salaam ñoom ñoo ko yor ndax bu dee bureau fédéral ah, dañ fa fal ay njiit ku mel ne sëñ Moustapha Gueye ak man mi ak euh, sëñ Balla Diop ak ay jëwriñ yoo am na ay muudu muudu am na ñoo xam si ne dañoo génn bokkuñu dëkkuñu ci dëkk bi war nañoo mat fukki nit ak juróom wala war nañoo mat fukki nit ak ñaar waaye ba fi ñuy wax jàpp naa ne daje wuñ benn daje boo xam si ne waxtaan nañ pour nan lañ def ba màggal gi jàll wala nan lañ def ba gi jàkk kon nag jàpp naa ne bu bëggee ne organisation bi comité directeur bu Touba ñoom ñooy saytu màggalu Serigne Darou Assane ci ci beneen ñoom ñooy saytu magasin Ndiassane gi ci wàllu organisation waaw ah, ci li ma gis moom waaw dafa am lu ma bëggoon a leeral tuuti ah, ci wàllu comme man li ñu xam si ne moom laa féetewoo ci màggal gi ndax ni ko mun may ah, féetewoo noonu ci wàllu internet bi Mame Ndiaye féetewoo ci wàllum bagage yi si ab sa noonu kaneen kaneen noonu man dañ ma am waay waaye ba xam si ne moom lañ ma dénkoon moom laa féetewoon muy ci wàllu Euh, wàllu ndawal gi lu demee ne ay nag ak yooyu waaw ah, ren nag dañ cee gis benn jéego boo xam si ne ah, commission bi dox na ci muy jéego boo am si ne du ma am solo ndax ginnaaw damaa nekkoon ci ñi ko jiite waaye gis nañ ne daal mbooloo mi topp suñu ginnaaw wax nañ ne dox na jéego am solo ndax daan nañ gis ne nag yi dañ daan lijjanti foo xam ne si ne fii lañ ko daan euh, lijjante ren suñu borom dimbali ñu bañ génn foo xam ne si ne fa lañ ko jënde woon daaw ñi nga amoon treize nag ren suñu borom dimbali nañu ba màggal gi am nañ dix-neuf nag la ñam biñ gi ren am nañ ah, cinquante neuf bool sa daaw ñu ngi amoon trente huit kon jéego boo xam si ne màggalu ren gi moom côté boobu am na ci solo trop trop trop muy jéego bu am solo ndax kenn ku ne xam nañ ne ab ceeb ak ndawal la koy togg kon jàpp naa ne boo amee ndawal gu doy jàpp naa ne suñu borom mën laa dimbali ba la ngay togg mën naa neex kon jàpp naa ne am nañ yaakaar ne daal ren am na jéego boo xam si ne daal dox nañ ko ci wàllu nag yi ak ñu mag ñi ko àndaloon ku mel ne Baye Mbaye Roxee ku mel ne Mbacke ak ah, suñu Baye Sagar ñoom lañu àndaloon loolu noonu ñu def ci ay euh, jéego yu am solo ak Cheikh daar bu Foras ñu def ci ay jéego yu am ci am solo yu am solo ma nekk gone ñu doyloo ma ci nag lu ñuy def na bari ñëwal kon nag maa ngi sant borom bu baax a baax a baax a baax ci ndimbal loolu xam te ne suñu borom def na ko ci man ba luñ ci tudd woo ma ci wala boog sa sant yàlla daal sant yàlla bu baax a baax daal suñ xool daal sedd na foofu sedd goo si ne moom ah, buñ ko bëggoon wax lépp daal mun ñu ko wax waaye suñu borom dimbali nañu daal ba jàpp naa ne ren moom màggal gi dinañ am màggal goo xam si ne moom ñaar fukkat ay xibaar yi moom daanaka ni ma ko doon leerale mën nañ ne at mu nekk nag lañ am ren at mu nekk nag ndax biñ jëndee fukki nag yeeg juróom-ñeent biñ ñëwaatee tey fii indi nañ fi nag boo xam si ne ci màggal gi la jëm kon màggalu ren gi nañ koo jàppee ne euh, at yi at nag lañ ko màggale ren di jégalu waaw. ok jërëjëf mbokk yi ñu doon dégg jëriñ jooj di signal yu bari comme ni mu ko leeral la muy lu am solo loo xam ne bokk na ci leeral yi moom mën nañ ko jàppee au niveau fédéral ndax bokk na ci jëriñ yi nga xam ne buñ doon dem ci kaw moom si ñu ko jiite ci la bokk comme ni mu ko bu ñu delluwaatee itam ci comité directeur bi nga xam ne moom moo féete fii Touba moom it si jëwriñu la bokk su rekkoon sëñ Modou May Fall mu seq ak moom liggéey bi ci sous commission bi ñu nekk mu nekk jëriñ ji su dee kon sëñ bi comme li jëriñ ji loon leeral rek xam naa foofu la ñuy duggaate ci wàccaay bi nga xam ne commission bi mi koy leeral te ñu dénk boobu yow ci wàccaay bi ci moo xam ci tonnage ceeb wala euh, soble wala comme ni ko jëriñ doon leerale nan ngeen waajale màggal gi ci lu leen war a togg auzu min asaytaan rajim wa inni u'iizuha bika wa zurriyataha min asaytaan rajim rabbi wa a'uuzu bika bi an yahduruni nuyu mbokki jullit yëpp mbokki taalib yi yëpp di ñaanal uh, Serigne Sidil Mokhtar suñu borom yokk ay leeram taasu ci barkeem di ñaanal Cheikh Mountakha Mbacké suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko ñaanal Serigne Mbacké Fass Tile Ndiaye suñu borom yokk ay leeram taasu ci barkeem. naka noonu ñuy ñaanal Serigne Abdou Ndiaye mii nga xam si ne moo fi nekk di Serigne Darou Hassan suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko. ak mboolem njaboot sëñ Daaru Asan Njaay gépp comme noonu sëriñ bi nga ñu laajee euh, dañ ko rafetlu lool ndax wàccaaw yi defe naa diiru fan yi yëpp ñu ngi ci ba fi mu toll nii mën naa dañoo egg ci pandaw bi mu mel ne commission bi nga xam ne moom la ñuy dénk muy sous commission internat ah ñu ngi ciy dox euh, jéego yoo xamante ni bi wax dëgg yàlla suñu kéemtalaay kàttan lañ ciy def. ndax commission internat dafa ëmb mbooleem bagage boo xamante ne bii ne mi ngi jëm ci organisation te jëm ci wàllu togg yi ak yeneen xeet yi nga xamante ni bii ne maanaam mooy bagage yi fii war a jëm si mu jumtukaay yi ak mbooleem ceeb yi fii ñëw ak jiw yi yàpp yëpp fii lañ koy dajale kon loolu mën nañ ne internat moom moo ko yor. te commission internat bi ren ni nga xamante ni bii ne noonu lañ ko doxalee suñ borom dafa dagal dañ koo séddalewaat ci biir ci biir commission bi kenn ku nekk mu am luñ la dénkaat. ndax comme bu fekkente ne wàllu cin yi nga xamante ni bii ne moom la ñuy génnee muy dem ci kër Mara yi ah, loolu am na ñoo xam ne moom lañ ko dénk cin yi nga xamante ni bii ne maam ah, dañ koy génnee muy jëm ci ah, xanaa fi ngeen fi ngeen dalal gan yi yooyu social lañ koy jox waaye mu mel ne ñu ngi ciy dox jéego yu am solo daal wax dëgg yàlla. ku gis euh, barab bi ni mu demee nga war a xamante ni bi ne gaa yi ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax te dañoo bëgg jamono ju ne saa su ne muy gën a yokku ba buñ ci àggatee euh, kenn ku nekk teg sa bët ne màggal bi moom day gën a yokk jamono ju ne saa su loolu nag ñoo ngi ciy ñaan euh, sëriñ bi nga xamante ni bi ne moo am kattan tey tey dimbale mu dimbali ñu ci ba suñ kemt laal kattan ñu mën ko cee def kom ni nga xam ne noonu lañ koy bëggee kon xëy na dañoo mënawul wax. loolu moo tax waaye ñoo ngi jégalu baax a baax ci kàddu yi nga xamante ni jox nañ ñu ko ah, te it ñu ñu ëpp njariñ fopp nekk sëñ Matar mii nga xamante ni bii ne moom lañ àndal ci commission bi ak gaay yi nga xam si ni yëpp ñoom lañ ànd ndax buñ limee dañuy juum ñoom ñëpp a ngi nii taxaw kon dañuy taxawlu foofu rek di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu